asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ah man la El Hadj Samb Saliou Samb président des communicateurs traditionnels département bu Koupentoum ah fi mu toll nii nag dañuy waajal lu mag muy pencum ñaani ñaani nag boo ko déggee mu nga cosaanoo dans le Mandé Mandé boobu nag. ci benn maamu Kamara Kounda yi nga xamee ne tey suñ nee ñaani fii ci ñaani bu ñu dëkk Kamara ñoo fi falu ñoo fi daan falu temps mag ñu di falu bu. ñaani bu nag mu ngi cosaan mande di raam di raam ba yegg si fi ba nga xamee ne nag ñëw nañ ah ñu ngi njëkk sant fii ñuy wax ko muy ñaani ba ñu jógee nag Koumpentoum Socé li ñu tasaaroo nag ci biir région Tambacounda ñii farewoo fii ci Koumpentoum ñii farewoo ci Koussanar ñii farewoo ci Koungheul ñii farewoo Gàmbi nga xam ne na kon ñaani ah canton bu yaatu la bañ ko defee nag diirooy at ñi samp benn dëkk bu ñuy wax ah mu ngi fii ci yoonu mereto ñu naan ko njàmbur njàmbur nag buur bu nga xamee ne moo nekkoon ko puntum soose moo doon jóg di rëbb di rëbb ba dugg ci àll bi fu soy ba mu demee ba mu yàgg ah mu seet benn dëkk boo xam ne ne ñu ko mën a waxee muy njàmbur boobu mu toog fa ah di noppalu ci taatu ay garab ci ba muy noppalu ah mel ni am lu ko yëgal ne ko fii nga toog de ku fi sanc ëllëg du sanc boo xam ne ne ah ay fetal daañ ko toj te buur nag fu nga xamee ne moom la am yaakaar ah ci xalaatam wala daan dëkk ba mu ko defee nag ba mu toogee ba ngoon muy ñibbisi muy tagg garab yi pour def ko xamé kay nga xamné né ne bu ko nexé rek su deppé rek dana gissat deppé bobu nga xamné né fa ko a ah, géntam wonon né ko ne fi ku ko dëkk du doon ay fétal ñokoy koy mu ñibisi ba mu ñibisé waxtaan ak ay kilifam ah, entourage am bam ko défé nak ci liñ sant njàmbur njàmbur na jup capital bobu ñuy wax ah tey ci biir ñaan yi ñu naan ko ndungu si bañ ko defee nag njàmbur googu bañ ko sancee ñeent fukki buur ak juróom soqee ko nañ fa ku ci mujj nag di mañ sa kimintan moo fa jóge woon dem sanc dëkk bu ñuy wax dëkk bu mu mujj wax léegi muy dëkk bi nungu si ndu sin googu nak fala may so commune temps soqee ko commencé nak di won ay kiramam bu joggé fa ah tok fa lu yag ay tubab bi ñuy wax ay des anglais ay tubab angleterre joggé nak boru gambi fu ñu ah dëkk bi makati di jànjambure ci tu sosé joggé fa ñëw fekk ci ko ne dañ koy ñëw ah tas dëkkum ndax am doole waaye bañ ñëwee nag fekk nañ fa doole joo xam ne ne xalaatuñ ko woon ba kilifa googu nga xam ne ne mooy le roi Kimintan dàqee leen dàq leen moom ñoom ñu di leen dàq moom ñoom ba ñu duggaat Gàmbi ñu defoon ne nag xeex ba jeex na fa la yem comme dugg nañ ah ci biir île lañ dëkk muy foo xam ne ne dëkk boo xam ndox ko wër ñu ne woon kii kat raw nañ ko fu ñu toll nii dootu fi mën a yegsi fekk na nak sénégal naa yu bari baye len ko ci ginnaaw ndaxte ba mbir mi tare ah kuy daw na dootu and ak sa xel ñu baye seeni ngannaay yu melni ay kanu yu baye ko ginnaw bi des ndungu si dess des kuntuwaata bu tewul ah may sa kimintaane len ma ngeen fi li di ñu tagal comme ya ngeen set set rek set ma xeb ma ñew fekk ci mo ne da ngeen mo def lu len neex tay manit ma def len la ma moom ñom bañ dugg fofu bañ duggé nak fofu nga xamné ne ne mooy màkkaat di jànjambure mu ne leen nak ah xex bi jéxagul dé ñu né ko nak ñun raw ndax té dugg nañ ci digënté bo xam ndoxoo ñu wër te xamoo noy def ba rom di traverser ndox mi ñu fekk ci ñu ndaxte seen nga xamné ne mo moo doon traversé ndox mi ah gaal yi fat fàtt nañ ko waaye ci kiramam mu wan leen ne man yaakaaru may gaal pour fekk si leen dinaa leen wan tey nag ah yàlla dafa am lu maye muy xam-xam ci xam-xamam nag la walis ba mu walisee ay jasit ñëw taxaw mu jaar ci kaw jasit yi ak gàngooram fekk si waa tubaab yi daqaat leen ba mu leen daqaatee biir Janjanburé ah, boo déggee a ah, janjan ci soose mooy fii tas na tasaaroon mu dàq leen ñu jéggiwaat beneen dex dex boobu ñuy wax Sankalikunda kon xam nga ne ñaani lu yaatu la parce que ñëw nga ne jànjëmbu rek delluwaat ne Sankalikunda foofu ba bañ doon demee foofu tubaab yi dawaat jéggi mu ne nag ci la weññee koo leen góor boo ko dàqee ba mu jéggi ñaari dex war nga ko mën a bàyyi ci la weññee koo nag dellusiwaat ah jël la nga xamee ne moom la gaa yi dese woon ci ngànnaay ci biir jànjëmbu rek mu boole ko ki gannaayam indi ko kon xam nga ne ñaani lu yàgg la histoire bu mag la histoire bo xamne ne la xeyna buñu ba tollu ci wat ah da ngay xamne ne luñu lu ñu bañoon reum yi dugg ci rewum ñaani kon ñaani rew mo xamne ne la rewum dalal gan la rew mo xamne ne rewum la réewum reum la rew mo xamne ne ne la réew moo xam ne ni itam réewum koom-koom la ndaxte ah, ci maam ya ba léegi lépp lu ñu ci biir Sénégal su la réeree boo yegsee ñaani da ko fekk kon xam nga ne peyum ñaani peyum réew kon nag ci loolu ah moo tax kuppantum jóg ne dañuy dekkalaat cosaan cosaan googu la ànd nañ ceeg administration muy le préfet préféré du département Mamadou Lamine Mané bi nga xamee ne développement rek ko ñor ah yobu département ci émergence bi nga xamné ne ne président di woté moko taxaw tax a mu taxaw ci thème né ci biir festival bi ah buñ ci jàppee ñun ñaaninke yi war nañu yobu suñu département fu nga xamee ne moom wax département bu am koom-koom muy un département émergent kon nak mu arté and ak doomu ñaan yëpp ku ne nak nag nee nga soose yi nee nga pël yi nga wolof yi kon nak ci lolu ñu bëggoon askanu ñaani ñepp ñu dëkke département Koupentoum tay ñuy wuyo ñaani ñaani ñu jóg japp ci bës bi and té ñi nga xamé né moy ñuko ko di le conseil départemental ci njitam nak njitul a suñu rak di dom ci département bi di rak ci ñi di Omar Sy di député ci département bi

nga xam ne ne sa gox dana mën a jëm kanam kon loolu la lii nga xam ne ne mooy festival ci moyens yi nga xam ne mën nañ jëwale ab gox kanam la moo tax nag ñu xam ne ne kon ñu ñëpp ko bokk ñëpp ñoo war a jóg pour yëkkati département bi département bi féete ci département yi gën a kowe ci Sénégal loolu mooy suñ mbébét ci festival bi ñu bëgg nag ñëpp jóg jàpp ci kilifa diina kilifa aada élus ko kon ñëpp a ci am wàll kon bàyyiwuñ kenn waaw na ñëpp jóg. Euh, président lan mooy ñaani bañ na. ñaani bañ na boo ko déggee dafa am ci yu bari yu mu soxee ko ñaani bañ na mooy tubaab bi ba mu fiy njëkk dugg dañ ne ko woon ñaani ñoom waxuñ dara ci mbirum tubaab ñu départ ba ci kanam ah ay kilifa diina jóg ne dañuy ñëw tuubal si waa ñaani ba ñu ñëwee ah. seni kirama yu fekk ñaani kirama yu fekk ñaani xam nañ ne ñaani bañ na ba tax na kilifa diina yooyu tey ah mën nañ ci lim ku mel ni ba jaxu ndaxte ba jaxu tey boo demee fa dëkk bu ñuy wax euh, kii euh, ko kuli bantan ña fa nekk tey ñi sant kan ñi sant ba ci ay taalibeem lañ parce que boobu capitalu ñaani mu ngi woon ko kuli ba mu fa ñëwee ah toog na fa ab diir waaye xam ne ne fii kat du barab boo xam ne ne li ma fi bëgg yàlla tuddugum na ko kon xam nga ne ñooñu sant ba ñooñu sant kan ay taalibe ma ba jaxu lañu woon mooy tey ñi nga xam ñoo dëkkee tey màkk kuli banta kon xam nga ne boobu ànd naag beneen kilifa bu ñu naan Birane Cissé Birane Cissé nekkoon buur ci Saalum waaye nag ñoom bañ fa ñëwee ah defe naa ne lañ fa doon wutut yàlla tudd ko muy tuubloo ñaaninke yi ndaxte réewum ceddo la waaye ceddo boobu yàlla da koo doole lool ba tax na ne ñooñu amuñ ci woon ndam loolu am na ci loo xam ne ne mën na moo wun ñaani bañ na waaw ñu ngi ko moomale nag nga xam ne ne tey moom lañ def héros national di Lat Dior waaye ah, waxa fa jaar waxa fa jaar ndaxte Lat Dior ba mu demee ba yëg boppam ne day jóg dugg ñaani ah defe naa ne yegg siwul te kon ñaani dafa am ay kiraamam yoo xam yàlla yàllaa ko may muy ay yëmb ak ay jalan yoo xam ne ne képp ku jóg ne da fi ñëw say taxaw ku ñëw fii def fi sa ngóora defe naa ne sa ngóora bu kerogee dana la réer ndaxte ñaani dañu réew moo xam ne réewum soose la réewum pël la te pël sunguf la xam soose sunguf la xam muy ñaari xeet yoo xam yàllaa leen boole ñu dëkk ba yàlla def na ne am na si ñoo xam ne ne tey dañoo jëlante ay soxna muy diggante pël yooyu ak soose yooyu kon xam nga ne loolu dëkk bu yàgg ko waral mu dem ba lawit ci wolof yi wolof yi ah am na su ñoo xam ne ne tey boo déggee yenn sant yi dugg ci biir wolof yi xamal ne mooy métissage boobu ñuy wax entre soose et les wolof kon boog ñaani bañ na loolu mel na ni lu ko wund mu ngi foofu tuuru Koumpentoum fu mu jógee. tuuru Koumpentoum ku ku batum ku batu mooy fii kat njort nañ ne képp ku fi xaar yaa rek da nga xéwal fekk la fi muy ku batu mu ngi jógee ci ku batu kooku tuuru soose xeer yi nekk ci ci dëkk bi euh, historiens yi dañ dañ wax ni. fi ñu ko gis rek dëkk bu dëkk bu yàgg la. waaw dëkk bu yàgg la. <clears throat> mag ñi tamit daañu ko tuddee ne. ay ceet yoo xam ne ne yu départoon la ay ceet yu ànd ay jigéen ñu ànd am gàcce nag fekk leen fa ñu soppeekuloo ko ay xeer loolu lañ koy déggee ci mag mi waaw. ok jërëjëf jërëjëf. te